الضيق ziar baax a baax di leen ci ci koor bu tedd gi ñu nekk nga xamee ne mooy weer bi tedd bi nga xamee ne ci la yàlla wàcce li gën a tedd muy alquran hudan linnaasi wa bayyinaati min alhuda wal furqaan guddi gi gën ci weer bi at yàlla def ko ci kon jamono yërmande la jamono yi la jamono yi mucc ci sawara la danañ ko ci yàlla defal ñun ñëpp defal ñu tawfiix bañ taxawee ko ci nam gën a selle na nam gën a baaxe ba mën ci am ngërëmul yàlla yàlla bi nga xamee ne bi ñu koy wàcce ngir ñu jànge ci nuñ koo ragale ba mën koo jaamu-jaamu gu sell yàlla ñu ko ci defal ñu jàng ci ñoome ci ragal yàlla boobu wàcc Sëñ Euh, di rafet bu baax a baax suñ ñaar ñii fi jiitu di sëñ Xalil ak sëñ mi ci kàddu yu rafet yi fi indi euh, li ñu sosoon nag xam naa dañ ci daanaka lekk nañu ko wax rek préparé xaju feeg dara damay fàttalante la rek muy koor gi ak li ci sëñ bi wax ak njariñ ci nekk ak sëñ bii nan la nan la ko fonke woon kon xam naa ne mm, ñu bañ a ñu ñi sant loog ñu sant jaxate xam naa koo gi na leen fi dañuy tënk rek ci lu mat 10 minutes wala ba 20 minutes rek ñu ci mën a tënk bala xel yee sonn wax fi nga xam naa ne am ñu xaw a sonn fi euh, dafa am ñaari li maj moo xam bi suñu abdulaat dajale woon ñu ay ndénkaane yi sëñ bi daan def ñu dajale ci ñaari tomb yoo xamee ne sëñ bi ci daan ab jataay la woon ci koor la woon koor ci njaarim benn bi di 1339 ci hijriya 1339 moo tolloog lan ci hijri ci mooy ba mu ñëwee njaarim ba am fa ñeent eh, juróom-ñeenteel ba dafa ñëw waaw beneen bi bi mu ñëwee njaarim ba am fa ñaari at moom benn bi ak àllarba la woon ci koor euh, gannaaw bi mu jullee tisbaar ba noppi di tolloo fukki fan ak ñaar ci weeru koor mu dajale taalibe yi gannaaw julli gi ba noppi fàttali leen koor gi lam ca waxoon rek kon la ñuy fàttaliwaat baat yu gàtt la muy maanaam koor geek niñ ko war a fonkee nag na lañ ko war a dundale jataay bu njëkk bi mooy kon bi mu def ci àllarba gi ci ñaar fukki fan ak ñaar ci koor gi mu ne dajee leeral lan mooy koor waaye leeral bi it nan la war a dunde koor yi feeñ ci dafa ne koor dafa am ñaar koor ci sharia ak koor ci xaqiqa mu ne bu dee ci sharia alsawmu fi lshariati al imsaaku an al akli wa shurbi wa maa ka nahwi ljimaahi min taxaquqi tuluhi lfajri ila lgurubi mu ne kon nañ fonk koor waaye nañ ko fonk ñaari niveau yëpp niveau sharia ak ci niveau xaqiqa bu dee bu sharia bi bu yomb la loolu képp kuy mukallaf na ko mën mooy bu Euh, fajar jotee ba euh, guddi gi tàbbi diggante sa oso nga téye sa bopp bàyyi fi lekk ak naan ak ànd ak sa soxna nee na loolu képp ku dib jullit te te te dem ba nekk mu kàllaf yàlla may la ngay ndaw mënoo ñu lay say waajur la jàppale ba nga toll yenn at yi lu néew néew war ngaa mën a njukkal yàlla defal ko loolu loolu moom ku góoree jiwut rek war nga loolu moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy koor ci charia kon loolu taxut kenn di wax taxut kenn di ci soññ mais bi tax mu ji soññee mooy mu ci xaqiqa mu ne wax fi lxaqiqati attanazzuhu an mujibati daa il qalbi almutaaliqati bi waaye li jara fexe kay farlu ba àgg mooy àgg ci koor ci xaqiqa te loolu mooy nga fexe ba woor ci sa xol waaye nga fexe ba woor ci say cër waaye nga fexe ba woor ci say jikko nee na looloo tax ba ñuy jàngale koor alquran dafa ne kutiba aleykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun dañuy dañ leen lii yàlla farataal ci yéen muy koor du yéen rek la lañ ko jëkk a farataal xeet wu fi mës a gëm yàlla te yahud yaak yëpp yàlla farataal nañ ko jëm waaye daal lu tax lu jàng ci ba mën a àgg ci ragal yàlla te loolu mooy li bi mooy sawmu ci xaqiqa mooy bàyyi xel yàlla ci sa xol woor ko ci xol woor ko ci say cër wor ko ci jikko moo tax mu ne koor ci xaqiqa mooy fexe ba àgg ci sa xol lépp lu koy taqal lépp lu koy gàkkal ba du mën a mooy fexe sa xol woor ci lu dul yàlla bàyyi lépp li koy gàllankoor dox digganteem ak borom te loolu mooy tawati xol yi nga xam ne dañuy dugg ci xol bi téye ko ba du mën a xool yàlla wala muy xalaat yàlla muy bëgg yàlla wala muy def di neex yàlla kon loolu mooy woor ci xol ak it nee na cër yi juróomi cër yi bépp bu bakkaar cër bu ne am na loo xam ne yàlla bëggul nga def ko ca Euh, boo téye woon sa biir ak sa euh, sa ñaari biir yi ba woo ba ba defoo ca loolee waaye yëlee nga def ca ay lu naqar yàlla kon ci charia moom woor nga waaye ci xaqiqa dëgg-dëgg taxul ñuy wax koor moo tax suñu jiw am na fu mu waxee ci biir euh, tazul shubaan mu ne as-sawm an yasuuma kullu adwi an kulli ma yufdi fadan lisaan mais bu ñuy wax koor taxut koor gu njëkk rek taxul ñuy wax waaye koor dëgg-dëgg as saw mu la al kon la tax ñuy wax saw koor mooy nga fexe ba sa cër yépp àgg ci woor ci lu dul yàlla wala woor ci lépp lu naqari yàlla woor ci lépp lu yàlla bëggul lépp loo xamee da lay xëcc di la xëcc ci tax def lépp lu neexut yàlla wala lu yàlla gërëmut nga sori ko téye say cër ba àggut ba loolu tax ñuy koor bu ko defee nee na euh, yooyu nga xam ne dafa yàlla bëgg ko mel ne ki al kibru rëy loolu ci xol bi lay luy gàllankoor xol la xasad ki ñaan loolu luy gàllankoor xol la kadib la mi ña koy def al xiiba jëw euh, yooyu yëpp ak yu wa axawaatiha ak yu mel noonu yooyu nee na am murit wurta yem rek kon ci koor bu njëkk gi muy koor bu sharia waaye daa war a àgg ci koor gu xaqiqa ndax am murid la dafa dem bëgg a lu lul yàlla comme ni ko fami waxee al la man laa irada la ku bëgg lul yàlla sëñ bi rek li li sëñ bëgg mooy moom mooy bëgg murid bi mu ne ñaari koor yi nag bu ci ne boo ko wooree am na loo koy mën a looy doge mu ne bu njëkk bi liñ la tere woon lekk ak naan ku waxtu kori dog jotee may nañ la may nañ la lañ la teroon sañ ko bu fekkee ne yow da nga yem rek kon ci loolu lañ lay daanaka loolu rek nga am mu ne bu ñaareel bi nag ku dem fexe ba woor ba àgg foofu lañ lay fayee la ngay doge du ak lekk du ak naan waaye mbóot yu yàlla def say ci sa xol lay doon mbóot yu yàlla def say cër la mbóot nga xam ne loolu leeral na ko ci buntu ñaareel bi tomb ñaareel bi mooy bi nga xamee ni sëñ bi yamul xamis si bisu aju alxames la ko def ci 11 ramadan dafa mel bii 12 ramadan bii 11 waaye ñu ay at sax ñaar ba tey ci Jurbel bii 1332 kon mooy bi ñëwee Jurbel ba am ñaari at la sa sin la fa ñëw 1330 la fa ñëw ci weeru hijriya ci ñaareelu at ba koor googee ca jàkka ja ba mu jullee ba noppi fàttaliwaat na la fàttali mooy dafa jël alquran lim ne woon wa an tasuumu xayrun lakum mooy <coughs> euh, yàlla dafa wax ne farata laa yi ma waxoon léegi ba noppi daal di leeral daan ne nag ku ku ku ci ku ku ku am ngànt may nañ la nga bañ a woor waaye kon kuy tukki wala nga am ngànt ne mañ may waaye nag nga wooroon day gën ci yéen mu ne mu ñëw di firi wanta ne ngeen woor day gën ci yéen waaye loolu bañ koy wax mooy ngeen fexe ba woor ci seen xol waaye ngeen woor ci seen làmmiñ waaye ngeen woor ci seeni cër waaye ngeen woor ci seeni jikko mu ne ndax ñett ñeent yi woor dëgg-dëgg ci yooyu lay amee boo ci woor nag ba defee ko nii ko yàlla waxee boobaa xayrun lakum mooy gën ci yéen ndax danga nga am euh, fay ga da nga am ndog ndog ndog lu duun lu la yàlla xaare gannaaw boo ko defee nag mu ne ida saamal aqaidu an iltafakkuri fi l agradi alfasida aftarat bi tafakkuri bi bi ajaayibi xalqillah boo farloo ba fexe ba sa xol bi wóor fexe ba doo ci toqal benn xalaat bu naqar yàlla doo xalaat fexe ba téye sax te ndax koor ci arab mooy téye sa bopp kon noonu ngay téye sa biir ak sa lami waaye nga téye nooy ngi jéem a téye sam xel nee nga fexe ba téye sa xol bi ba doo ci xalaat lenn lu naqar yàlla bu boobaa yàlla am na lu mu lay faye boo dogee lami dogee du lekk du naan waaye mooy defal la ay xalaati leer yoo xamee ne loo xalaat ci kimtaan yàlla yi lay doon loo xamee ne ñépp ci mën a jariñu mu ne it boo fexee ba téye sa làmmiñ wi li xaraam ndax it euh, fàttali ne koor mooy mooy mooy mooy mooy weer wi nga xam ne dañ ciy tàggatu aw weer la woo xam ne dañ ciy jàngee ab école la boo noppee nag pratiquer ko ci at mépp kon lu lii ci sëñ bi wax it ñu bàyyi waal ko xel baax a baax mais fexe ba téye suñu bopp ci xel tey suñu bopp ci làmmiñ tey suñu bopp ci cër dañ koy jànge ci koor waaye pour at mépp la pour dund gépp la ndax eh, ñu jàngee ci taqwa mooy kon buñ fexee ba tey suñu làmmiñ bi ci bàyyi li yàlla yàlla tere muy lu xaraam wax lu amul wax ay caaxaan wax ay wax yu wax yu wax yu amul solo nee na <coughs> jullit bi bu farloo ba àgg foofu te daanaka tasawuf loolu rek lay jàngal booy gis tey suñ ci waay yu baree bari Euh, ay jawharul nafis ay ni nan ngay fexe ba téye sa làmmiñ technique yooyu dala koy jàngal waaye kon loolu mooy moom mooy kooru xaqi xaqiqa boobu mu ne loolu boo ko te tasawuf nit ki bu sóoboo ci yoonu yàlla ba àgg fenn fi daa am lu ko yàlla fay muy baatin boobu baatin xikma nee na képp ku farlu ba koor googu nga maîtriser bopp ba àgg ci koor ba doo defati lu naqar yàlla ci sa làmmiñ yàlla am na lu lay fay mooy lam daan fay suuf yu nit yàlla yu mag mooy lu ñu waxati rek xekk ma lu ñu wax rek muy doon luy jëriñ mi def fi doon baatil boo gisoon ab yéefar sax ne ko boo ko waxee ci yàlla rek mu gëm loo wax nit mu dugg ci xol bi loolu euh, yàlla du ko may ku ku laabut suñ ci am na fu nga leerale ci xikma nee na yàlla xikma yooyu da ko da ko mooñaale woon nit ba mu leen waxee alastu bi rabbikum ñu nangul ko xikma yi dafa dugg ci ñoom waaye bi bi ñëwee ci àdduna bi rek weddi eh, yaram yi dafa diis ci ruu yi ñeen yi dañ ko fàtte moo tax boo tuubaatee ba sellaat laabaat xikma bi ñëwaat kon loolu moom loolu tasawuf di jàngal nan ngay laabaate ba mën a àggat ci boobu waaye am na ñoo xam ne moom laab duñ ko defaat duñ mën a sell moo tax xikma du ñëwaat léegi nag koor gii li muy dimbale mooy dimbale xol bi mu tuub ba mën a àggaat ca ruu ga nam selle woon ca na ko yàlla bindee di xam li neex yàlla xam baatin nee na loolu kon ku ku bëgg baatin ku bëgg baatin fi nga koy amee mooy koor gi kon ku téye sa làmmiñ ba doo ci waxati lu naqar yàlla moo tax gis nga ci tasawuf sax ci xilyatul abdal mooy mi naan fi ñuy ba abdal yi fi ñuy àggee ci nee na nee na dafa am juróom ñeent yooyu nga xamee ne ci la abdal yi àggee doon doon doon abdal noppi ci la noppi ci wax bëgguñu rek noppi noppi ngir noppi waaye noppi ci wax lu amul solo boo doo wax lu xarab kon mu ne bu làmmiñ wi téye ba du waxati lu xaraam ci la koy yàlla yi defalee karaama yi lu mu waxati mu nekk xikma te yàlla moo wax ne yuutil xikmata man yasha wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kathiran yàlla mooy seet ku ko neex jox la xikma waaye day na lu leer na de képp ku yàlla defal tawfiix yi nga am xikma am nga xéewal bu rëy rëy mu waxit ne ku fexe ba woor ci say jëf fexe ba doo def benn bidaa nee na yàlla dana la xéewalee lépp looy defati sunna lay doon te sunna soosu ngay def mooy kii yoon san salam mooy jëf mooy nga àgg ci modèle lu yoon sansalam ci looy def mu rafet ni yoon san daan def te kooku mooy modèle bi nga xam ne mooy la yàlla wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kii mooy royuwaay bi mooy la suñu ci waane wax wa ëkk malul war a xalqan wa xulqan mooy ki nit ki gën a mat nee képp ku téye sa bopp nag ba fexe ba looy def nga jéem koo nirooleeg modèle bi gën a kawe ci mbindeef yi nee na looy defati day doon sunna boobaa nee na sunna soosu nag tu addi ila doxul janna moo lay may nga mën a dugg na wal bu dee biddaa mooy lu dëppoo wut ak yonent saa salaam ay jëfam tu addi ilal naari mooy xëcc nit ki yóbbu ko nee na rek du kon ci xel mi wala xol bi wala làmmiñ wi dong wala euh, cër yi waaye dafa war a àgg sax ci jikko yàlla yàlla may bañ bañ bokk ci ko woor googu nee na loolu lañ koy amee mooy nga fexe ba téye sa bopp mboolem jikko yu ñaaw yi nga xam ne saa salaam ya alxuraan tere ne saa salaam nga nga jéem koo téye sa bopp mooy rawatina lu mel ni ki rëy wala lu mel ni ki xasad muy kiñaan wala taasub mooy fanatisme wala wal wal wal wala xamiya xamiya mooy jikko yi mooy day alxuraan di wax xamiyati jaahiliyatil ula eh, arab yi njëkk lislaam di ñëw dafa am jikko yu ñoom jikko jikko ju ñaaw la nga man eh, nga lu ne mën nga ko wax euh, askanu jàmbur waaye sax askan moom ku ci waxul lu néew rek nga mën a tukkal àdduna mooy xam nga ñu ko mën a parloo par naa lañ ko mën a waxee yooyu nee na ku ko fexe ba tàggat sa bopp jéem a xam ne koor gi occasion la nga nga jéem a defaraat say jikko defaraat say jikko moo tax lu baax la sax ci koor gi ñuy jàngataat siiratu nabi sallam jikko yi sallam ak doxinam ak doxin nit ñu baax ñi Sëñ Tuubaa jàngat seen jikko ndax dañuy woor ngir bëgg bàyyi jikko yu ñaaw ñu jàngat ñoom pour xamaat ko nee na képp koo def yàlla dana defal alfadail mooy lay wax ci am na fu nga waxee ne kullu man saama an razaili fa innahu yafturu bil fadaili képp ku farlu ba e, bàyyi yu bon yi jikko yu ñaaw yi yàlla dana la ko wotteel sa sa sa sa ndogu comme ni nga kii dala téye woon dafa woor bàyyee lekk ngoon mu lekk tàndarma kii nag boobaa li ñuy def mooy makaarimul axlaq jikko yoon sans yàlla lay def def ci yow. kon loolu mooy eh, sëñ bi eh, ñaar ñaari jataay la am na ñetteel bi sax waaye damay bañ jaxate jaxate yeeg loolu yi a sonn naa naa léegi naa ñëw kon ci eh, sëñ bi nan la daan nan la daan nan dundale koor gi nan la daan dundale koor am na ñetti buñ demee ci minal baaxil xadim Euh, nu ay tomb yu bari yu wuute ci ay ay ay page yu wuute boo ko dajalee dana la jox benn image ci sëñ bi nan la daan dundi koor loolu dajale woon naa ko euh, sëñ Basiru dafa njëkk a indi sëñ bi avant koor bu koor di bëgg ñëw nan la sëñ bi mel mu ne bu koor daan bëgg ñëw da koy bàyyi xel lool di ko préparer waaye du ci yam day bëgg ñépp di leen ko fàttali balaa koor ga egsi ñaare da daan def ay jataay di soññewaat bu baax di jàjjee di fàttali di ci tere nit ñi ay caaxaan ak i fo di wax nit ñi ñuy bàyyi xel te préparer ko ndax mi ngi bëgg a ñëw nee na jataay bu mu a toog dana fa fàttale koor ak njariñ li comme waaye lii moom ci biir koor gi la waaye daana ci jataay yi balaa koor gi ñëw liñ ñu ci daan ëpp lu muy fàttali mooy iblis ak i pexem bokk na ci li sëñ wax ne sëñ bi daana wax ci koor daana ne neen balaa koor gi ñëw dee leen di nemmiku waat seeni xol dee leen jékki-jékki xoolaat seeni xol ndax nee na seytaane xam na ne koor gi buñ duggee yeewu nañ ko amatut nu muy jaare ba egsi ci ndax du yóbbu nañ ko kasam te yéenewu leen ngeen mucc di muccale xam na ne bu koor gi ñëwee occasion la da ngeen mucc mu bëgg nag balaa koor gi ñëw lay def ay virusam ci yéen waliyaasu billaahi taala loolu loolu loolu man moo koy diire sax ma tiit ndax bu koor gi bëgg ñëw da ngay tiit ndax ndax baaru luñ la def liñ lay def balaa affaire bi egsi nee na xam na bu koor gi ñëwee mënatut a defar ci yéen dara <coughs> kon balaa koor gee ñëw lay gaaw moom ay jiw soxla ko tuddee nee na day gaaw sànni jiw yi ci xol yi gaaw daw nee na bu koor gi ñëwee mu mu màgg ndax donte mënatuñ ko li muy def def na ko nee na kon bàyyi leen dee leen di bàyyi xel nee na kon xol yi dee leen ko nemmiku bu leen bàyyi iblis benn sàggante benn instant boo leen di sàggan mu gaaw jaar jaar jàll def fi li mu fiy def bàyyi fi li fi def koor gi ñëw nga jàpp ne yow moom kenn mënatu la dara fekk yow li mu mi ngi def effet yi kon loolu bàyyi jara bàyyi xel euh, bokk na ci waaw nee na te nee na li gën a garaaw mooy iblis bu bàyyee loolu loolu ci xol yi xol bi dootu mën a recevoir te leer yi wàcc ci ci ci ci biir euh, waaridaat yi nee na li tasfuwal afida wa taslihu lil waarida euh, wal mawaahib fa inna abwaaba sama tabqa maftuuxatan alchahra kullahu li tartafica al adciya wa tanzilu al ijaabaat nee na koor gépp dañuy bi bunti asamaan yi leer yi wàcc moom nag day bañ ngeen profité ci am njëriñoo ci loolu mu gaaw def li muy def ba yow koo gi mën a ñëw yëgu benn changement ci sa xol te fekk ne lii am am na kon nag nee na sëñ bi daana wax naan alxadara alxadara min al aduw fa innahu mushrifun ala qulubi mooy leen baax a baax noonu noonu baa ngi noonu baa ngi seen xol yi di xool num fu mu ba yàqal leen ba koor ñëwee doon jariñ mu ne bokk na sëñ bi daan waajale koor gi mooy ñi mu daan tarbiya bu koor gi ñëwee day yokku lim leen daan liggéeyloo ci koor ngir tuyaab yi gën a bari nee na ñi nga xamee nit yi alxuraan lañ alxuraan lañ baaxoo kii da daan leen yokk lool lim leen di liggéeyloo ci wàllum alxuraan ca wàllum bind ma ca wàllum jàng ga ca wàllum jàngale ga ak la ca aju lépp ñi daan liggéey da daan yokk lim leen di liggéeyloo lim daan jàngale it mooy jataay daan toog di fi di joxe ay jàngale sëñ bi sëñ moom dañ jàngi neeñ saa su masaan a julli ba noppi li ci ëpp balaa tëjaat delloo dana defi tomb jàngale kon moom moom moom xam naa kon yàlla na yàlla boole suñ jataay jàngale yi ci yooyu rek merci ne bu ko defee jataay jàngale yooyu day yokk nee waxtu wu ne mu koy mu koy mu léegi ba ba bu koor gi weer wi duggee mu ne bu weer wi duggee li ëpp lim daan soññ nit ñi mooy al ihsaan ihsaan am na ñaari maanaa benn bi mooy nga jëm te loolu mooy li li koor di jëriñ mooy ragal yàlla mooy yensan san bañu ko laajee lan mooy ihsaan mooy an ta'budallah ka annaka taraa ngay jaamu yàlla mel ne yaa ngi ci kanam yàlla kon taqwa moo kon loolu mooy li koor gi jëriñ ne nañuy bàyyi xel ne koor gi loolu lay jëriñ si nañ ko nañ ko waaja waajalaat baax a baax beneen bi it al ihsaan dana firi def njekk ci ay mbokk jullit mooy def lu baax te ñaari maanaam yëpp yoon sansam da ko te bu gisee ci biir xam naa damay bañ temps bi xam naa tënk rek euh, sëñ sëñ Bachirou yoon sansalam da ci di gën a tabe di gën a dimbale nit ñi di gën a jariñ euh, joxe nee na yoon am na fa ko addis boo dafa dafa tababe woon ba mel ne ba mel ne ab taw waaye nag li fi ëpp fi mu daan tabe mooy weeru koor te booy xool weeru koor ca dëgg-dëgg mooy weeru tabe dëgg-dëgg ndax tabe tabe wiisut amal la am am am créé la mooy eh, al ijaad wal imdaad ñaar yooyu mooy mooy al juut ndax kaw eh, ne yàlla eh, ci melokaanu tabeem ci la créé adduna bi boobu mooy bi gën a mooy ñi bind ñëpp kon ci tabe la waaye bu la bindoon te waxul li tax mu indi la fi ak na ko war a jaamoo ëllëg mu dugal la sawar daa nga tab ga mun jariñ tab gi gën a kawewaat nag mooy ci koor gi mooy indil la alquran moo tax saa sam yàlla kon moom mooy gën a mat day tab ga daan fay moo tax gis nga daan gën a tabe ci koor sëñ ci waaye gis nga moo tax mu ñuy digalaat foofu ihsaan boobu kon ñaari maanaa yëpp muy muy ihsaan ci ragal yàlla ba ba mel ne yaa ngi ci kanam sa borom ak ihsaan ci defal lu baax yi sëñ Tuubaa dañu euh, ñaar yëpp valable na ci koor mu ne it bi daana bu koor gi bëgg a duggee daana soññee bu baax a baax ci waxtaan yi mu daan def ci ñu wat ci luñ mën a yokk ci jaamu yàlla ñu def ko xam naa nag loolu moom yéen ñi nekk Paris moom dana naqaree def lool ci <laughs> naafile yi moom am na mu ne moom du ah, <laughs> xam naa xam naa koor gee ko sonal rek nee na it sëñ bi daana soññee bu baax a baax ci ñuy daje ci julli taraweex yi naafile yooyu sax waaw nii ñuy julli dajaloo dajaloo gi def gi ak dajaloo ci benn barab di ko def nee na it daana bari lu muy dimbale bu baax di saraxe ci koor gi na ñi sonn ñu amut nee na ay ay ndimbal yu bare bari yu mu daan joxe ci koor gi nee na dañ daan togg togg yu rëy ay ay bagaan yu rëy rëy di ko di ko di ko séddale di ko jox ay ay junniy junni nit ci dox ndéem yi ak dëkkandoo yi nee na euh, euh, bu dog jotoon xam naa mooy kon li Baay Faal yi def rek xam naa foofu lañ nee dañ daan séddale ay ndog yu bari di kafe yi lépp ñu jël ko di ko joxe loo xam ne kenn mënu koo misaal sax ca la gën a neex ci aw uh, ay xeetu lekk te nee na loolu nag du dog ci koor gépp ba koo gi jeex nee na kafe la daan doon ak attaaya ak yeneen ñam yu neex te guddi gépp dañuy koy séddale ba fajar jot loolu la daan defal mbooloo yépp waaye gan yi fi daan teew mel na naar yi borom xam-xam ay wàllu yu jógee Mauritanie dinañ fi ñëw ak nit ñu kawe ñi da leen daan beral seen yëfi bopp yi la wax euh, indil leen ko ñu leen koy nam gën a selle rek mu ne it euh, koor gi foo ko masaana fekk day bëgg loolu dafa mel ne doomi Sëñ Tuubaa sax am na ñu ko jaan roy Sëñ Saaliw dafa mel ne koor ak ak ak gàmm daa mel daana jël euh, ci roy sëñ bi ci loolu nga xam ne sax ku bëgg yenn yi da ngay profité waxtu woowu euh, pour man cee waaye nag sëñ Basiru leeral na foofu ne euh, mbégte mépp mooy boo ko dee wax ci lu aju ci diine ak ci yàlla ak loolu waaye nag nee mbiri adduna daan na ah weer wi na euh, da daan tëju lu bari waaye koor gi di daan génn yàlla ci moo moo ci génn di wàcce ba wàcce alxuraan xam nga ne kon képp ku am dara ci yàlla rek da nga nit ñi nee na jataay yu bari la daan amal ci koor gi waaye jataay yi da ko daan dundal ci joxe joxewu ñam xet dimbali nit ñi boroom alal yi dañuy ñàkk mu leen di dimbale nee na fu mu toll it di sant ak a bég nee na koor gépp daaw ci gëdd nit ne donte ñi eh, dongay tërbiya yu nekk ci biir kër gi bu ñu defoon sax lu dul noonu kenn du leen gëdd ndax xam nga waxtu waxtu tëjalil tëjalil ilaahi la waaye fu masaana toll di leen di ñeewonte di leen neexal eh, daawut nangu it eh, nee na ku ci yittewoo ci mbiri mbiri adduna ci koor gi ku ci masa def lu loolu daanaa fexe ba xëccaat la ba xamal la l'essentiel ci koor gi daal mooy dundal ci diine comme loolu mooy li ma leeroon léegi rek nee nag ku masaana yitteel am yitte yitte adduna boo ñëwee daan la xanaa nag ku am yitte adduna xanaa war ngaa mën a xaar ba weer yi yàlla nag xanaa lu néew néew mu ne koor gi da daan tabe tabee lool sëñ bi moom comme ni ko ni ko ni ñu waxee ci yoon saa ci hadis bi ne dafa tabe woon mel ne ab taw waaye koor gi ñëwee da koy yokk kii nag mooy ki doon yoon saa mooy xadiimam moo tax da ko caa niru nee na weer yëpp la daan tabe waaye nag bu koor ñëwee nag moom moom spécial la moom nee na li mu nekk ci jaamu yàlla ak ak ak ak ak ak yitte yi nekk yépp du te du ko du du du duñ ko empêcher duñ duñ dox diggante mag jaamu yàlla joxe ak ak tabe waaye sax da day jël ne da koy jàpp ne mooy priorité day jàpp ne jaamu yàlla yépp baax waaye nag koor moom la ci gën a baaxati mooy tabe ak maye ak dimbal nit ñi loolu nag dafa mel ne suñu mbokk naar yi am nañ ci farlu lool noonu ci wàllu koor niñ ci mel nañ jikko ju rafet doo xam ne moom euh, ñun ñëpp le euh, sax xam naa dañ ci roy yoonu sansalam ak Sëñ Tuubaa rek ñu gën koo dundal xam ne loolu euh, ci jikko yi yoonu sansalam la ci jikko yi yàlla la sax yàlla ji boobu moom mel noonu ci koor ak lu dul mu ne bokk na ci damay xam naa ne mañ di ñu fi nag mu bokk na ci lim fonkoon lool ci weeru ramadan mooy alquran danaan def ay jataay alxuraan yu bëree bëri nee na fu mu toll di waxtaan te li day mel ne comme alxuraan li muy wax lépp jataayu alxuraan lay doon jataay bu masaan toog alxuraan la cay waxtaane gis nga fii rek biñ ci nettalee wa an tasuumu xayrun ko aw laay la jël ci alxuraan firi ko jox ñu ci loo xamee ne man ngaa jàng alxuraan ba ba ba sonn tafsir lu ne te doo doo doo ko dégg noonu muy tafsir boo xamee ne ci day génne ca ca ca leeru yàlla ga euh, mu ne yëmutoon ci fonk alxuraan da ko daan dañ fonk ci bindulu ko yaakaar naa am na kayam bu ñu nettali boo xam ne yaakaar naa ci koor la woon waaw koor mu nga xam ne ñetti fan a mu ne weer wi ñaari ci ñu ne ko nangam mu ne bu weer wi dee indi luñu ma kayam bi nee na yaakaar nañ moo ko jëkk bañ ko defee ba indi ko mu ne xanaa lii de mosu leen ko jàng ci ko def kon loolu ci koor la woon yëmutoon ci kon jàng gi rek ak di ko dund ak di ko toog di di ko dund ndax alxuraan di tax loolu comme xooloo danaa maanaam liberté mën a eh, commentaire léeg-léeg euh, alxuraan ci koor la la wàcc kon li gën a jàll mooy al euh, euh, dund dund ci alxuraan yan sansam ne daan da daan da ci koor waxtu ne jibril day wàcc mu koy tariwaat ak moom kon alxuraan mooy mooy mooy li ni bëgg yàlla ni ni yàlla ni bëgg nit mel ko mu jëmmal ko ci Yonent salaam pour ñoo xam ne du ay théorie rek waaye luñ luñ mën a dund mu Yonent salaam muy taxaw alxuraan teew kon occasion la koor ñu dundaat ko fexe ba ba ba dun dun dundaat ko dundal ko moo tax ñu tari bari beeg wax yëpp ngir bëggaat rek kaana mu ñu doonaat alxuraan ji doxaat dundaat ko ci jikko dundaat ko ci xalaat dundaat ko ci wax yi ci doxin ba alxuraan euh, dundaat ci ñun nee na daawul yem rek ci jàngi waaye da ko daan euh, ba ci nee na imaam ji imaam ji naafile da daan seet ku gën mën a mokkal alxuraan ku gën a mën a tajwid ku gën a mën a neexal alxuraan lay jël bañ na ko ba ay mauritanien la daan jël xam nga ñun euh, loolu loolu yéeme la sëñ Tuubaa tajwid da ko yittiloon ak fonk alxuraan gee koor gi Eh, ah, ba ci ba ci murit ba ci njaareem yaakaar naa ba ci année quatre-vingt yi ay ka daan jiite eh, jiite jawaat waa Mauritanie la léegi lañ ay Sénégal tàmbale te loolu ci jamono Sëriñ Tuubaa tàmbale loolu waaye loolu dafa mel ne li doon wax léegi ci murit gi ci jamono Sëriñ Tuubaa ni mu nekkoon lu universel ñëpp bokk ci ak léegi dafa mel ne dañoo xaw a delluwaat ci wolof gi ak local gi ba mu xaw a kii waaye Sëriñ Tuubaa Sëriñ Basiru leeral na ko baax baax ci déer bi ñu ngi ko daan dundale ci koor gi bokk na ci yi sëñ Basiiru leeral ba tey ci biir Minanul Baaqil Xadiim day tënk rek nee na mooy euh, Ramadan googu euh, comme defee ca Mayomba nee na bi weer wi feeñ ba bi weer wi euh, teru ba bi muy ba bi muy kii ni ñu koy waxee dee lekk fii lu dul ab xaal la la te bañ saal ngi sunna bu kiyee mu teg ci loxoom rek nag moom <laughs> spécial la ab xaal boo xam ne sax lekkoo ko rek ci teg sa loxo rek pour bañ a kii nee na loolu sëñ Basiru nett na ko nett dina ci it sëñ Basiru ci biir mi nan nee na waaw foofu sax dafa ne euh, diggante yaasal yaa xayra day fi eh, kii ak yaasal bu saarati ñaari xaside yooyu nee na nee na nee na eh, lekku fi luñu luñ taw walaa sëñ ba si nettal na fi ca ci Mayomba korite ga korite gu yërëmtalu googu nga xamee nee na képp koy jàng sax da ngay di triste mooy nee na eh, dafa dafa dafa dafa woo jot mu daal di def ab xutba daal yow yàlla maa ma maa ngi wari te kat bokk na si sunna ku wari defal la ab ab ab ab muurum koor man nag amul ma defee muurum koor xanaa ma defal la xasida gi nee na ba muy lu muy xale ya ay xale yu nekk ci ga buy buy julli bu bu ne allahu akbar ñu xaqataay ndax xamuñu ne day mel ne kuy maaj xamuñu ne muy def mu doon waaye loolu lu triste la. waaye waaye waaye bépp murit bu ko jàng ak immigré rawat na immigré ku ga bàyyi réewam te bokk ci Tuubaa war naa war na laa jàngal bu baax a baax a baax nan nga war a fonk si diine nan nga war a fonk si diine dara wurta tax nga am complexe dara wurta tax nga nga niig niigal wala nga daw wala daay danga nga ko war a jàppe ne koor gu lu metti metti fekk la fii jàppal ne rek yaay koor gu maa yom bekk la mun munu koo jege sax ah, ah, dañ dañ dañ eh, lu metti metti rek nañ fàttali koor gu maa yàlla leeru koor maa bëgg laa laalañu rek am na yu bare bëri tomb yu ci sëñ Basiru leeral waaye malheureusement affaire fay na ñu ngi ci xel mi waaye <laughs> foofu rek ba beneen ñaan yàlla defal ñu koor guñ nangu te koor guñ nangu xam nga yéen sama tam nee woon alxajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa janna aj guñ nangu moom da ngay set wicc ci bàkkaar boo dee woon direct àjjana koor gu nangu nag mooy taqwa la'allakum tattaqun taqwa wa laqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah yonante bu fi mës a ñëw ragal yàlla boo demee ci suratul suratul shu'ara danaan kazabat xablu nee na fattaqullaha wa ati'uni fattaqullah yonent yëpp danaan inni rasulun inni rasulun inni rasulun amin lam cay teg fattaqullaha wa ati'uni bu ne man yonent bi yàlla la ragal leen yàlla rek ci topp kon képp yonent bi mës a ñëw lanu dong la ñuy jàngal mooy ragal yàlla ragal yàlla ak topp yàlla koor nag mooy occasion bi nga xamee ne moo ñu defal ragal yàlla kon yàlla nañ ci yàlla defal ragal googu ba nga ne sunu nokki gu ñu nokkeeti sunu xool gu ñu xoolati sunu jéego bu bu ñu def rek mu doon ci yàlla doon ci lu neex yàlla doon ci lu ñu amee ngërëm yàlla لازلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرا